dal leen jàmm ci xibaar yéen kaay yi nga xam ne nag moom la xëyandoo l'observateur du xamal ne kay jamono ci réewum Sénégal direct info du xamal ne kay moom njiitu réew président Macky kay dafa dalal xel yi xam ne ne yëkkati loole nag ko yóbbee njiitu réew mi président du ko nangu ba lu mel noone di ko yaa ak di yéen kaay dañu xamal ne moom kay jamono ji li nga xam ne nag kenn Sénégal li ñuy sàcc ci moo di ngir ñu leeral lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gu demee laas yéen kaay dañu xamal ne njiitu réew mi kay jamono ji noppi na ngir aar li nga xam ne nag moom la doon wax wax bëggal ko ci nga dëkk Afrique yi nga xam ne nag ñoo nekkee fi yéeni kaay bi dañoo xamal ne bëri na ñoo xam jamono ji noppi nañ waaye nag dafa mel ni njiitu président Macky dafa mel ni mbir moomee daal da koo desee soxal vox populi di xamal ne nag jamono ji coow li nga xam ne nag moo amoon ci réewum Sénégal ci réewum Sénégal muy dorog bu bëri boo xam ne daal dañu koo tegoon loxo yéenekaay bi dañu xamal ne jamono ji réew ma Angola mi nga xam ne daal dañ ko ci tuddoon doon wax naan ñoom ñooñee daal am na ay yoo xam ne daal maanaam daal Angola googee ñoom daal seen loxo ma nga woon ci biir yéenekaay bi dañu xamal ne ñoom koy jamono ji weddi nañ lépp nag jëm na ci a moom a di ñu xamal li nga xam ne daal moom la war a jot bu boobaa bu mu bett kenn ndax te kër googee jamono ji ay jafe-jafe yu métti la ñuy waaye nag bokk na ci li nga xam métti gi nga xam ne daal moo am ci waa aar li ñu bokk yéenekaay bi dañu xamal ne ñoom koy jamono ji tey lañ gën a noppi ngir fësal seen ak naqar ci loolu xam ne ñoo nekkee ci Mbàkke jamono ji la nga xam ne daal moo fa amoon l'Observateur di ñu xamal ne tey ji laa leen di wax wax na Asta Mbàkke kay moom la doon takk ki ko doon takk di di Serigne Bassirou bi dañu xamal ne mbir yooyu noonu la demee vox populi dañu xamal ne ak lu ma di xew jamono ji na xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbàkke woo ñi ñi nga xam ne daal moo di njabootu Serigne Touba waaw tey daal la leen convoqué Mbàkke Balla Aysa woo na ñi nga xam ne que njabootu Serigne Touba lu mën di xew yéen kaay bi di Vox Populi ñu xamal ne njiitu réew mi président Macky Sall moom tamit mu nga jëm ci dëkk bu sell bii di Touba